man Padros maa ngi seetaan suñu TV suñu TV mooy télé bu mag bi nga xam ne lépp luy actualité lépp luy culture lépp luy société c'est-à-dire bàyyiwuñu dara lépp loo bëgg rek ñëwal ci suñu TV nga seetaan ko fi suñu TV mooy suñu télé sama doom moo ko moom di DJ Ama daanaan nag mooy borom télé daanaan bàyyi leen ko xel très bientôt dina gën a leer